benn fan ci atum bi ak délibéré bi nga xamante ne ñu ngi ko ciy xaar LSDH di xaar ba tey ñu ubbi ab l'enquête ci faatuk kii di Cheikh Niass nga xamante ne ba ñu ko tegee loxo ba noppi ci loxol yoon la daal di ñàkkee bakkanam te fekkoon mu dellu si ci Sénégal ngir teewee màggalub Touba ab information judiciaire nag ubbi nañ ko ci bu ñu sukkandekoo ci 24 heures 24 heures seek waxtaan ak Ngouda Fall Kane ci jafe-jafey Sénégal waaye tamit tolluwaayam rawatina ci wàllub ger ak mbuuxum fitna gi fi lool résilience contre le crime organisé en Afrique nekkoon it ancien inspecteur général d'État jàpp ni lii ab mbas la bi nga xamante ne moo nekk fii ci Sénégal di lëmbee tamit Afrique ak adduna te faaw ñu ut ci saafara Walf Quotidien xëy ak ñun tey def ab jàngat ni kon bëri na ay njaboot yi nga xamante ne ñoo nekk ci Sénégal ay way retraité ñoom ñoo ko yor maanaam téeméer boo jël ci njaboot yi ci Sénégal daanaka juróom fukk ya mag ñi muy personne troisième âge ñoom ñoo leen yor mu nekk mbir bu doy waar muy wane bi ak anam yu ñuy traité liggéeykat yi les échos tey dafa xëy dikkaat ci enquête bi nga xamante ne ANSD def na ko ci wàllum xëy ci Sénégal wàllum payoor yi ak waxtu yi nga xamante ne dañu koy liggéey ñu jàpp ni kon ñàkk tollale dëgg lañ ci nemmeeku ci Sénégal ci téeméer boo jël ci wàllum payoor yooyee daanaka ñeent fukki la ñuy daal di versé ci lu toll ci 20 pour cent effectif permanent yi ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ouvrier ci téeméer boo jël ñeent fukk ak juróom-ñett la yu taftal juróom-ñaar la ñu ay permanent ñoom nag lu ñuy jot daanaka téeméer boo jël ñaar salarial bi les échos toftal ci ni ci masse salariale permanent bi ci secteur moderne bi daanaka góor ñi ñoo ci ëpp ndax téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak ñeent yu toftal juróom lañu mu mel ni ci Sénégal moom liggéeykat yi bokk ñu yem ci wàllub traitement gox-goxaan yi ci Sénégal tamit bokku ñu yem ci wàllub nawet gi Sud Quotidien defab jàngat ci campagne agricole 2021 bi nga xamante ne dëkk bu nekk am na ni nga xamante ne moom nga ko dundee yéene kay groupe Sud Communication bi di xam ne ni kon taw bi ci boppam ak mbiru yàlla moo wane yi tollowuñu ci biir yéenekaay bi ñu dénk kàddu amadu Métiour Ndiaye mu yepp ingénieur agronome bi nga xamante ne dafay xam ne ni nawet bu ren ji moom ci Sénégal mënuñoo jàpp ni baax na ndax nawet bu daaw sax moo ko gën gannaaw ndaxu taw bi ndox mu sell mi nga xamante ne ñu bëri ci askan wi ci yenn gox yi ci Sénégal moom la ñuy wër moo tax SONES nag li mu bëgg mooy ci weer yi ñu dëgmal nag dootuñu am benn jafe-jafe ci wàllum ndox njiiteel kër ga moo ko xamle ci L'As Quotidien ci biir Walfadjri ñuy wax ci wàllu politique def ab taxaw seetlu ci ëllëgu coalition bi nga xamante ne PDS moo fa nekk jot na ak ñii di waa ñu gis ni ab alliance la sans ambition sans bi ñu defee ko ay chiffres mu mel ni am na lu bari li ko wundu li wundu jafe-jafe bi Sarkozy ak Donald Trump nekkee bokk na ci ñàkk warmal bi nga xamante ne defoon nañ ko réew Afrique yi Dakar Times def ci ab taxaw seetlu ne kon ñaari njiit yu réew ya woon nekkee ci jafe-jafe jamono ji rawatina ci wàllub yoon dafa mel ni kàddu ñu yëkkati yoon ci dendub Afrique mu def lu mooy réewub Mali daanaka beneen njiitu réew teewul ba mu doon waat ci kanamu Cour suprême ngir jiite réewub Guinée Vox Populi dikkaat ci xew-xew bi nu mu tëddee foofe ca Cour suprême ngir moytu polémique bi waroon a juddu Aliou Cissé duut na ñëpp moo tax mu woolu Bamba ci list bi nga xamante ne moom la fësal démb L'As Quotidien dikkaat ci li nga xamante ne moom moo waral entraîneur bu suñu gaynde daa di woolu ndaw bi nekk ci Olympique bu Marseille ca Premier League tey choc bu métti la ñuy xaar diggante Liverpool bu Sadio stade quotidien wax ci tension bi ñu njorte ni mën naa am ci boobu boobule choc yéenekaay bi wax tamit ci li nga xamante ne moom la ñuy xaar tey muy final coupe du Sénégal bi war a dox diggante Casa Sport ak jàmbaar combat bi war a dox diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier dañu koy mujj dakkal ba benn fan ci weeru janvier atum 2022 sunu lamb di xam ne ni bokk na ci li ko waral ko faatuk dubales di waajur bu Balla Gaye numéro 2 ci jamono jooje combat Zos Alioune Seye 2 naka noone Forza ak Pakala moom ci weeru novembre bi ñu dëgmal lanu ko fas yéene tëgg